ma jël kenn jëndee la duma xool kenn jëlee la sama yëg-yëg ci yow laa yam dama réeroon gën sëriñ Moustapha duma jël xool kenn jël sëriñ Moustapha sama yëg-yëg ci yow laa yam dama réeroon gën sëriñ Moustapha sama way wi ma jagleel ko sama sëriñ kenn jënde la duma xool kenn jëlle la sama yëg-yëg ci yow laa yam dama réeroon nga gën sëriñ Moustapha duma jël kenn jënde la duma xool kenn jël sëriñ Moustapha sama yëg-yëg ci yow laa yam dama réeroon nga gën sëriñ Moustapha sama way wi ma jagleel ko ma sëriñ ba Mustapha xel man daajul keneen ki ma doyloo sagal sëriñ Mustapha du ma jël kenn jëndee du ma xool kenn jël sëriñ Mustapha sama yëg-yëg ci yow laa yam dama réeroon nga gën sëriñ Mustapha dama faf gëm mu silmaaxa dama faf sur lu dul yëfam amul ma geddu ko Moustapha defar sey Moustapha du ma jël kenn jëndee la du ma xool kenn jël sey Moustapha sama yëg-yëg ci yow laa yam dama nga gën Serigne Moustapha fa ma tolloon ci ak lëndëm ku ma xam démb xam maa tey di nga xam ne maara fi man dama réeroon moo gën sëriñ Moustapha duma jël kenn jëndee la duma xool kenn jël sëriñ Moustapha sama yëg-yëg si yow laa yam dama réeroon nga gën sëriñ Moustapha li nga fi def ñu teg ci bët li nga dékku ñu teg ci bët fi nga jaar ñun ñu fekkee ko ku la war al ku wér sëñ Moustapha du ma jël kenn jëndee du ma xool kenn jël sëñ Moustapha sama yëg-yëg si yow laa yam dama réeroon nga gën sëñ Moustapha waruloo wax ñu yoxi yoxi waruloo soxla ñuy neelaw waruloo digle ñuy naa sax lu mu man doon jaaral sëriñ Moustapha duma jël kenn jëndee la duma xool kenn jël sëriñ Moustapha sama yëg-yëg si yow laa yam dama réeroon nga gën sëriñ Moustapha sunu soppe nga sunu sëriñ sunu yaakaar lii ñuy bége suñu xol Moustapha ko moom surtout maam Mbaye si doy sëriñ Moustapha duma jël kenn jëndee la duma xool kenn jël sëy Moustapha sama yëg-yëg ci yow laa yam dama réeroon nga gën sëy Moustapha masuloon waxloo deful masuloo digle lu mu jëful lu mu doon yaa ci mën koo su ma dee gor nga moom sëy Moustapha duma jël kenn jëndee la duma xool kenn jël sëriñ Moustapha sama yëg-yëg ci yow laa yam dama réeroon nga gën sëriñ Moustapha ñi la yen yen bi juumuñu li ñu yaakaar ci yow dañul jërëjëf Sidi Moustapha di la jàngal sooxal sëriñ Moustapha duma jël kenn jëndee la duma xool kenn jël Serigne Moustapha sama yëg-yëg ci yow laa yam dama réeroon nga gën Serigne Moustapha ku la gëm booya boo dalal aw fiitam lu muy ragal bari lislaam lay daawal doonay magtum ji doy Serigne Moustapha duma jël kenn jëndee la lu ma xool kenn jël Serigne Moustapha sama yëg-yëg ci yow la yam dama nga gën Serigne Moustapha na la buur yàlla dolli ndam Moustapha dundal dundal te sa wér yàlla ko su ñaanul ñu yet Serigne Moustapha du jël kenn jëndee la duma xool kenn jël Serigne Moustapha sama yëg-yëg si yow laa yam dama réeroon gën Serigne Moustapha sama woy wi na njaariñ dino sàmmit bay buf taawal munu mooy sab joxoñ ndax murshid nangul Serigne Moustapha duma jël kenn jëndee duma xool kenn jël Serigne Moustapha sama yëg-yëg ci yow laa dama réeroon nga gën Serigne Moustapha sama way wi na jur njariñ ba murshid nangul Serigne Moustapha sama way wi na jur njariñ ba murshid nangul Serigne Baye Bassa sammit bay bu futawal ba murshid nangul Serigne Moustapha dina sammit bay bu futawal ba li nga fi def ñu teg ci bët li nga dékku ñu teg ci bët fi nga jaar ñun ñu fekke ko ku la war al ku wér Serigne Moustapha du ma jël kenn jëndee duma xool kenn jël Serigne Moustapha sama yëg-yëg ci yow laa yam dama réeroon nga gën Serigne Moustapha waruloo wax ñuy yoxi yoxi waruloo soxla ñuy nelaw waruloo digle ñuy naa sax lu man doon jaaral Serigne Moustapha duma jël kenn jëndee la sama xol kenn jël sëriñ Moustapha sama yëg-yëg si yow laa yam dama réeroon nga gën sëriñ Moustapha sunu soppe nga sunu sëriñ sunu suñu xol Moustapha ko moom surtout maam Mbaye si doy sëriñ Moustapha du ma jël kenn jëndee la bu ma xool kenn jël Serigne Moustapha sama yëg-yëg si yow laa yam dama réeroon nga gën Serigne Moustapha masuloon waxloo deful masuloo digle lu mu jëful lu mu doon yaa ci mën koo ne su dee gor nga moom Serigne Moustapha du ma jël kenn jëndee la du ma xool kenn jël Serigne Moustapha sama yëg-yëg si yow laa yam dama réeroon nga gën Serigne Moustapha bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi xaqa xamdi wasalaatu wasalaamu ala muallimi albashariya sayidina wa mawlana muhammadin rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadiyihi wastanna bi sunnatihi wastarshada bi rushdihi ila yawmi ddin jataay bi fan yi dañ may yónnee xasida bi waa Kawlax defoon ci sa woy jur en bilaadu bi maqdami tijjaani fal kullu ilfu masarratin wa tahaani wal gammu walla mudbiran bi juyuushihi wa shada ayki fi l afnaani fa tafattaqat azhaaruha wa tajaawabat atyaaruha bi rawaiqi l alxaani fa tazaayadat ashwaaquna fa tazaayadat ashwaaquna wa tadaacafat li tarannumi l atyaari fi l axzaani falqalbu yasfu waljufuunu sawaakibu mislal atiyi yaduumu bil faydaani waaye wata annasat li ma ji ikum arwaaxuna wata annasat li ma ji ikum arwaaxuna wata annasat li ma ji ikum arwaaxuna yaa atrabal atraabi fi l azmaani laka fi l quluubi mawaddatun wa makaanatun laka fi lquluubi mawaddatun wa makaanatun laa zilta fi izzin wa fi lixsaani warita almacaarifa kaabiran an kaabiri huwa nuxbatu laqraani fi lbuldaani kon nag fallaahu yansuruhu wa yansuru xisbahu fallaahu yansuruhu wa yansuru xisbahu fallaahu yansuruhu wa yansuru xisbahu wa waqaahu mimma yuxtasha wa waqaani jarul tekki ndax ñi déggul arab sax xam nañ ne li ma doon wax ay niti cofeel ñoo ko waxoon Sayid Cheikh mu symboliser woon la mu symboliser ci jamono loola tey ki ko symboliser mooy kiy toog ci biir wax nañ ne ba sëriñ Cheikh ñëwee ñu ne seeni ruux wéttaliku na am na koo xam ne day wéttali ruux di wéttali xel di wéttali xol di nàmpal pas-pas di tàggat jikko tabaarakallaahu kon nag kalimaat yooyu ñu waxoon ca kawlax moom la làmmiñu jamono ak làmmiñu borom pas-pas yi ak làmmiñu njaboot yépp yëkkati di la ko wax loolu moo doon kàddu yi daanaka jaxasoo gi xaw naa bari ci sa ndigal ñu koy tijji tabaarakallaahu di joxe ñaan di la bàyyee kàddu gi di wax nag ne daara ju am solo sos nga ko vingt quatre ans muy jaamiat Ramadan sa doomi bopp yi am initiative bu rafet ren ngir gën a dundal daara jooju gën ko yokk ñu def colisée yépp nag balluwaay bi fenn la mooy masdar bi te tabaarakallahu mooy yow kon nag loolu moo doon kàddu yi ñu doon yëkkatee rek ñi ngi jéggalu sax ci jaxasoo gi bu baax a baax a baax mu wax ne ñu def ñaan jàng fatiha jàng juróom-ñetti suuratu quraysh jàng falaxeeg naasi salaatul fatihi def ko haddiyee ci mag ñi ñu tijjee ko jataay bi wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. asalaamu aleykum ah tabaarkàlla ñu ngi nuyu ñi fi teew ñëpp nuyu kilifa yu góor yi ak nuyu kilifa yu jigéen yi waaw nuyu itam mbokki responsable yu góor yi ak responsable yu jigéen yi nuyu tam ñu jóge àll ñëpp ñëw ak ñi bëggoon a ñëw te am empêchement mu mel ni tabarkal la xanaa njaboot rekk <coughs> waaye jot sax amul moo tax dañ ko précipité ni li nit ñi miinoon sax mooy laylatul qadr bi ñu def ko suba waaye itam ñeewante nit ñi ndaa buñ ko defee dimanche ñu bëgg a jóg suba ga liggéeyi mu xaw xat tuuti moo tax ma mujj ñaan rekk ni nañ ko def ci samedi bi ndax bu ñu delloo ci teesu sayidna cheikh kullu laylatin laylatul qadr te fi ko teg moo di kullu yawmin huwa fi sha'n kon nag moom mi xam li xew bu ne kullu laylatin laylatul qadr am ñuy laaj ndax at mi yépp la ci jublu wala biir ramadan bi rekk la ci jublu mel ni itam tabaarakallahu ni ko oustaz Cheikh waxee rek ñu ngay sant professeur yi fi jaar yépp te def fi cours yu am solo waaye itam di sant sunu njabooti bopp yi ci seen colisée bi tabaarakallahu apprentissage mënul ñàkk te wolof yi ñooy wax ni loo nekkul taalibe ba doo nekk sëriñ ba dama mujj ma ne waaw te ñoo fatu boog waaw <laughs> fa tabarakallahu waaw maam cheikh maam cheikh ana maam cheikh ana maam cheikh man leen tabarakallahu yal na yàlla barkeel yàlla leeral dënn yi te yàlla yokk xam-xam bi te yàlla sellal ko Ah, nuyu ñi ñu am ñëpp ñu ngi fi toog am na bu ñu demee ba ca kanam dinañu tudd ñi fi nekk mu mel ni nag coow yi dafa bare ci laylatul qadr ku nekk ak dat ba mu tàmm mu mel ni ca at ya passé woon joxoon nañu leen ay tegtal yu wane ni ci ñaar fukki fan ak juróom benn jëm ñaar fukki fan ak juróom ñaar ci lay nekk ndax laylatul qadr neuf lettres rekk la ñetti yoon la ko yàlla tudd ci biir saar bi donc trois fois neuf c'est vingt-sept waaw loolu moo tax fi ñu ko teg mu wér waaye itam man ci sama analyse bopp dama foog ni bala ñuy tudd laylatul qadr war nañu seet qadr bi qadr bi ay jaar-jaaram fi mu jaar ba yagsi ci guddi gi fan la baatu amr bi war nañu étudier ay jaar-jaaram ba xam fi mu yegsee min kulli amri mu mel ni ñaar yooyu bu leeree ba noppi ñu mën a nag waxtaane laylatul qadr mu mel ni ci ni ko góor gi doon waxe wax ni sunu boroom dafa njëkk a bind muqarrabiina yi bi mu paree ci muqarrabiina yi mu bind ruuxaaniyiina yi bi mu paree ci ruuxaani yi na yi mu bind ñaari énergie énergie yi positive ak énergie yi négative ci ñeent yooyu te énergie yu positive yi ak énergie yu négative yi ci la énergie renouvelable yu duggaale waaye mu ni ci ñeent yi benn bu ci ne def ci jël benn toq boole toq yooyu yëpp bind ci nit ñu laaj ko nag lu tax mu mujj bind nit te nite ko yitteel mu wax ni dafa bëggoon yi muy séqal planète yu yëpp fekkee ñëwam doonte nag am na ci sax ñu révolté ndax defoon nañ ni yàlla dootul bind keneen fekk centre d'intérêt bi nit la mais prototype bi Muhammad la waaw mu def ñaari titre bii mu tuddee ko Sharaful Kamal bii mu tuddee ko Sharaful Maqaam mu mel ni ci seen kuur yi ah tudd ngeen ko tudd ngeen identité absolue tudd ngeen it identité initiale mu mel ni ni ko scientifique yi di firee ak ni ko mystique yi di firee bokkul waaw looloo tax Seyid Cheikh wax ni c'est plus que la récitation kon du wàcce kaamil kese kese c'est plus que tout autre geste de piété kon du naafile kese kese kese ak muuru koor c'est plus qu'un enseignement kon ëpp na fiiri alquran kese kese kese kon c'est de la haute science mu dellu ci seen identité bi identité absolue bi bu ko defee ci sharaful kamal ak sharaful maqaam mu jël sharaful maqaam bi jox aadam jël sharaful kamal par anticipation mu dox muhammad ñoom ñaar ñépp nag ku ci nekk investir na ci yow defal na aadama sax publicité comme ni ngeen ko waxe publicité ba moo tax sax mu ñaan malaaka yi pour ñu sujootal ko biñ ko sujootalee te fekk yàlla ci biir investissement bi jox na ko fu ko dëkkal jox na ko besoin yamu fa soxla malheureusement problème bi posé mooy envie bi moo tax bu ñu dee tudd lu suusu darahim mas nañ ko wax ci gàmmu Tiwaawan maanaam wëyu wëyu boo xam ni tafukat la waaye buy tafu alalu nit lay tafu bokkul ak lusuusul karamaat mooy ñi nga xam ni dañuy fekk cër bu la yàlla sédd ñu def le tout fexe ba nangu ko looloo tax ci envie boobu parce que soxlaatu ko woon comme besoin yëpp yàlla assureel na ko ko lu muy doyati envie mu mel ni ci la iblis jaar pour tafu karama bi ko yàlla jox te mooy sharaful bi ah looloo tax inni jaailun fi l ardi xalifa ñu toogal ko ci chaise bi chaise bi éjecté ko parce que maqaadu sidqin ku ci toog te sidq bi nekkul ci yow chaise bi def lay éjecté te nekkul comme chaise éjectable yi nekk ci avion de chasse nga xam ni yaag chaise bay ànd déedéet bii chaise bi du bouger parce que course yu moo ko géré moo tax biñ ko tegee ci kaw chaise bi moom aadama mu éjecté ko pourquoi parce que innahu kana zaluman jahula donc procesus boobu daal di bloqué mu dem ci sharaful kamal bi ñu jox Muhammad par anticipation parce que ñëwagul waaye kuntu nabiyan wa adamu bayna al maai wa tiini kon par anticipation jox nañ ko charaful kamal yàlla sunu boroom defal ko publicité publicité bi mooy jawharatul kamal charaful kamal jawharatul kamal waaw kay léegi nag muy marchandise bu nga xam ni il fallait ñu def appel d'offre pour ku représenter marchandise bi am ku tàllal loxoom ku ñu wax Ahmed Tijani Chérif ni ni candidat la pour ci marchandise bi waaye ba tey ndax kuntu waliyan wa aadamu bayna al wa tiini waaw lu normal la mais ci biir projet boobu yàlla ñaan pour aadama wàcc bi mu wàccee te comme ñàkk ñor moo tax mu raté vocation bi yàlla dafa mujj ñaan ñu séddaleel ko sharaf bi ndax àttanu ko ñu séddaleel ko sharaf bi defal ko ko ñeent xaaj bu jëkk bi ñu tudde ko ruux ñu joxal ko ko Muhammad xaaju ñaareel bi ñu tudde ko al jusmaniyaat waaw mooy dimension physique bi ngeen tudd ak dimension mentale ya ca yëpp ñu soog ko ko jox moom aadama ñetteelu xaaj bi ñu def ko ar risaliyaat te moy mission yi yàlla nara yónnee yonent yi mu nekk ñetteelu xaaj bi ñu joxal ko ko noox moo waral inna arsalna nuuxan ila qawmihi ñeenteelu xaaj bi muy aqaidiyaat yi te mooy jëm ci wàllu jaamu yàlla yeeg yi ci des ñu joxal ko ko yonent yàlla Ibrahim ci ngay xame lu taxoon yen bi diis ndax yen bu ñu xaaj ñeenti xaaj muhammad yenu ca moom aadama mu yenu ca nuux yenu ca ibrahim yenu ca te taxul mu jeex moo tax bi mu ñëwee ba ci kaw suuf yàlla dafa xaajaat responsabilité bi mu koy jox defal ko juróomi yëf fii ci kaw suuf ak bu leen juróom benneel defal ko yeneen juróom ci kaw asamaan ca xëy ak bu leen juróom benneel yim ko defal fii ci kaw suuf juróom yi mooy li ngeen di tudde les cinq sens waaw xams waaye ñu dem ba ci jamono am ñu ci beneen ñu tuddee ko sixième sens sixième sens bi ci la artiste yi dugg musique génn ca peinture génn ca pour bu ñu demee ba bëgg interpréter li ci kaw tam mënuñu ko wax ñu melal ko comme jox nañ ko cinq sens yi nag ak sixième sens bi juróom ya ca kaw te mooy ñu génne ruux mu ñëw ñu indi nafs mu ñëw ñu indi fitra mu ñëw ñu indi atifa mu ñëw ñu indi mantiq muy juróomeel bi donc ruux bi mooy esprit bi nafs bi mooy soi bi waaw fitra bi mooy intuition bi waaw aatifa bi mooy sentiment bi mantiq bi mooy logique bi juróom yële di interconnecté ak juróom yi ci kaw suuf waaw nag fële ca kaw comme fii am na sixième sens ñoom seen sixième ñu def ko ci nawaamis yi nawaamis yi nekk ay brigade brigade de contrôle parce que yële ay àdduna la bu ci ne àdd roox àdduna la nafs àdduna la fitra àdduna la waaw mantiq àdduna la kon bu dee war a jëfanteeg yii ci suuf fook mu am brigade de contrôle ñoom ñooy newal mi si waaw looloo tax yàlla ci xereñam lan moo tax mu pardonné aadama ci façon bu gaaw biñ ko pardonné moo di yëg na ci moom am na sax kersa ndax ba yëf ya xewee ca kaw te muy làqatu ci suufu garab yi sunu boroom daf ko laaj ni ko ndax danga may nëbbu mu ni ko déedéet wallaay nëbbuwuma la dama rus waaw yàlla ñeewante ko bi ko wàccee nag te pardonné ko mu ni ko dinaa dellusi si dinaa dellu si aljanna moo xam aljanna boobu la wala beneen aljanna dinaa dellu si biir bu may dellusi naa indi ay nabiyiina indi ay siddiqiina indi ay shuhada indi ay saalixiin moo tax fa taaba alayhi waaw waaw ci biir loolu bi mu joxee fële sharaful kamal joxe fi sharaful maqaam te mujj ko séddale bañit yaakaaru aadama tas mu bind ak sharaful muhabbat ñu jox ko caatu aadama chiis mais jox giñ ko jox uniquement pour prototype bi Muhammad moo tax ñu jox ko ko te moo di lam tazal fi damairi l kawn tuxtaaru laka al ummahatu wal aba chiis lañu ko chargé te mooy ñu fexe ba garantir du ñu fi takk soxna bu leer gi xajul ci moom parce que il fallait ñu di ko transférer génération par génération looloo tax ñu wax chiit mi caatu aadam na garantir loolu bu ko defee nag comme yenni nañu aadama allégeel ko fardo bi waaye yonent bi it li ñu ko sédd àttan na sax lu ëpp sharaful kamal waaye ñu bàyyil ko xel ñay ñëw ëllëg ndax ñëpp duñu am kàttanu yenu lépp moom it ñu ni nañ ko séddaleel carafam ñetti xaaj benn bi ñu defal ko ko caraf diini bu ñaareel bi ñu defal ko ko caraf ilmi bu ñetteel bi ñu defal ko ko Sharaf Tini xaadi ma jaxate kala ni dërëm bi génnul gaal gi ba tey ndax xawa Sharaf Tini haysu tariquhu tariqu damaani alhaashimiyi almuayyadi xawa Sharaf alilmi حيث كشفه عن الغامضات الحجب في كل مقصد حوى الشرف الطيني حيث انتسابه لفاطمة الزهراء بنت محمد الشيخ رافع الوعتيب waaye li may gi rëy rëy rëy ak li publicité bi di rëy rëy rëy ba mu ñëwee toog na bés ba defe ni borom bi daf ko fàtte mu mujj naan ko ila man takilu nii ndax yéen bu metti rek yàlla ko may bàyyeel ndax ñaara fi nekk wujju wu xolam dul féex ak noon waaye pexem dul jeex waaye ba fii ñu toog tey jii ci ngoon gi nii ñaar yi du fi jóg wujj wu xolam dul féex ak noon bu pexeem dul jeex ba fii ñu toog du fi jóg loo tax ci gisinu Seydina Cheikh lu ñuy tudde ak tarbiyatu bil himmati wal xaal dafa mel ni pour moom genre voiture la mais voiture bu nga xam ni ñetti vi vitesse rek la am amul quatrième bi ci des mooy amul marche arrière en avant rek bu ko defee ñu wax la première vitesse bi xarful baa la deuxième vitesse bi xarful taa la troisième vitesse bi xarfu saa la waaw xarful baa bi mooy sa tawxiid moo tax mu nekk benn tomb ba nekk ba noppi nekk ci suuf doo xam ku dul yàlla te doo yëkkati sa bopp mukk ci suuf rekk ngay bàyyi sa bopp ndax sa tawxiid sa boroom tax mu nekk benn tomb ba bi nekk ci suuf deuxième vitesse bi mooy xarfu ta ñaari tomb la nga jël ko ci yonent bi te mooy li góor gi waxoon ni ku incorruptible la physiquement et moralement waaw donc ñaar yooyu dugg foofu troisième vitesse bi nag Seydina Cheikh moo la ko wax tawajjah naxwana tawajjah naxwana tuta al amaana wa gammid ayna qalbika an siwaana wa laazim ahdana ma dumta hayyan takun idan masuunan fi ximaana jeex na garantie nga bëgg kay ci man waaw la Seydina Cheikh wax garantie nga bëgg kay ci man waaw waaye boo ñëwee ci man ba noppi nag gëmmal sëbët bët pour ci keneen boo ko defee ba noppi nag lii ma jox te mooy warlul garantie bi te may werd bi waaw bu kenn dox sa digganteeg moom wa lazim ahdana maa dumta xayya takun idan masunan fi ximaana bu booba man maa lay assuré looloo tax ñi yaroo ci tariqa cheikh dëgg dëgg dëgg rus nañoo tudd yàlla seen soxla moo tax du ñu def mukk duaaul alfaad duaaul xaal rek ndax bi du ñu def mukk duaaul alfaad eh yàlla may ma nangam yàlla rus nañ ko parce que seen xaal bu ci yàlla mënul dëgg régler seen problème jaratu ko waaw waaw jeex na waaw tax dañuy teey léeg-léeg nga gis ku yàkkamti innama amruhu ida arada shay'an an yaqula lahu kun fa yakunu waaw waaye yaay jaay lal xaali nag بين الكاف والنون حروف مسمى وحروف غير مسمى liñ la mën a tudd tudd nañ la ko mais am na lu ñu tuddul li ñu tuddul nag yàlla ko xam moo tax Maodo mi xam loolu wax ko yaa jaa'ilal xaali baynal kaafi wan nooni kooku xam na lu xew waaw waaw tax bala ngay tudd laylatul qadr foog nga xam tawaaful qadr d'abord baatu xadr bi yenn jaar-jaar la am soog a ñëw ci guddi gi jaar-jaar yi mu am moom baatu xadr bi muy sabbih isma rabbika l-a'la alladi xalaqa fa sawwa waaye walladi qaddara fa hada qadr ba jaari fa waaw sabbih isma rabbika al-a'la alladi xalaqa fa sawwa walladi qaddara fa hada xoolal loolu di nga jég dégg ñuy fiiri sax ti wax sabbeex sabbalal waaw isma rabbika al aala waaye sabbeex isma rabbika al aala bakkal bakkal ki nga xam ni bàkk jar na ko ndax moo nekk ana lu tax nga di ko bakk parce que xalaqa fa sawwa bind na te li mu bind yeesu walladi qaddara fa hada baatu bi ñëw foofu qaddara nattal na ku ne sa àndaar fa hada ba noppi mu géreel la ko ku ne jox na la sa àndaar bi nga mérité ba noppi géreel la bi ci des mooy nga gëm ni allahu yabsutu rizqa li man yacha waaye nag wa yaqdi yàlla nee na maa ubbi buntu wërsëg yi pour ñëpp jaam bu ma lëj bu ma ca yéene rek nga fekk ca sa wàll waaye nag dinaa vérifier wa yaqdi dina vérifier lu lew lu lewul ubbi na buntu wërsëg yi waaye lu lewul yàlla du ko soxla lu lew rekk lay soxla bi ki des nag wallahu yuqaddiru leyla wa nahaar yàlla nee bu ma mënul woon sama bopp chronomètre li guddi war am ak li bëccëg war am kon di ngeen gën a sonn ndaa bu guddi continuer woon bëccëg amul àdduna tukki bu bëccëg continuer woon guddi amul àdduna tukki mais lu tax ñëpp bokkuñu benn bëccëg bokkuñu benn guddi parce que intérêt yi bokkul bu ko defee jant bi koy dox moom du sonn moo tax bu leerale lay ñii ba waxtu demam jot mu bàyyi leen ñu dem ci seen guddi mu dem ci ñeneen leeralal leen bi ci des mooy huwa alladi jaala alchamsa diyaan walqamara nuuran wa qaddarahu manazil wa qaddarahu manazil waaw def gi mu def jant bi ak façon bi mu am ak énergie am hmm? te bu paree guddi gi mu remplacer ko weer wi moom it ak énergie boppam mais lu tax fa qaddarahu taqdiran qadre bi ñëwaat foofu waaw lu tax mu programmer weer bi ci boobu façon pour iddatu shuhur te inna iddata shuhuri inda allahi itna achara shahran fukki weer ak ñaar yi ñu ne at mi dee na mais ci biir fukki weer yeeg ñaar koor gi koor gi koor gi balaa ñëw luy xew maamu koor du ñëw bu maamu koor ñëwee nga woorantu ndeyu koor ñëw nga woorantuwaat bu gëna a yaatu barax lu ñëw nga def récréation parce que barax lu waru fi woon sax dugg ndax ku tudd maam tudd ndey wala tudd doom mais lu lu fi baraxlu di def dafa buruxlu waaw bu ko defee nga def récréation wax ma récréation de comme niñ leen ko waxee woon pour nag di pare pour li la taxoon di jël disposition yooyu yëpp te mooy koor gi ci boppam waaw ok bi ci des moo di waman qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma aataahu llah yàlla nee na bu ma la baaxee ba gérer la ubbil la buntu wërsëg yi nga am chance jot ca yow it geestul ñeneen waaw geestul te yëg ni li nga yor du yow waaw ndax fal yunfiq mimma ataahu llah bi ci des moo di nga bàyyi xel ni ki nga amal affaire lam yakun lahu sharif kun fil mulk waaw wa xalaqa kulla cheyin fa qaddarahu taqdiran waaw te moo di li góor gi waxoon ni yàlla olohiyam du ci discuter parce que il est inaccessible waaye bu dee mulkam nag mu xajal ca ku nekk waaw tax waaye itam bu la ca xajale ba noppi nag bul boo xante ak moom maa lam yakun lahu sharikun fi l mulk waaw xalaqa kulla wa qaddarahu taqdiran hmm? waaw kay kon nag bu bu bu baatu qadr wëree wëree fii yëpp ba noppi nag te li mu la wax eggule fenn mu bare ci yaa wa ma qadarullaha xaqa qadrihi jeex na وما قدر الله حق قدره et pourtant wal ardu jamian qabdatuhu yowma alqiyama wassamawatu matwiyatum bi yamini yàlla ne ah walaay joxu leen ma la ma yelloo waaye nag ba ëllëg bu ëllëgee ba ngeen ñëw fa ma nekk asamaan ak suuf ya ngeen doon naw tax leen ngeen di yëkkati seen mbag yi ngeen xool ma def ko comme téere teg ci sama gannaaw bu boobaa ngeen xam ne am na ku moom waaw donc foog nga jël xadr yooyu wiir wiiral wiir wiiral wiir wiiral ba xëy ter si ci Layla bi parce que yi mu la wax ni yépp mu ngi ci téere bi te téere bi ci guddi gi la wàcc kon bala ngay sedd Layla bi sedd téere bi ba noppi góor gi xam yi xew man dama yaakaar ni kooku xaw ma ban genre la tabaarakallahu hmm? li mu wax nii ma faratna fil kitaab mu nit ñi defee ne alquran kese kese rek la xamuñu lu xew ñu ndax ma faratna fil kitaab dafa yóbbaale tawraat ak injil ak yëpp a nga ci biir même alif lam mim dalikal kitaab ñetti yëpp dugg nañ ci moo tax mu wax ni nag bu jëkkoon ci tawraat ak injil baatu al aabid li mu daan firi mooy adorateur jaamukatu yàlla moom laa daan firi mu ne waaye bi yonent bi ñëwee sallallahu alayhi wa fireetul adorateur waaye li muy firi mooy candidat lool yàlla soxla ñi bëgg a nekk candidat ñu wax ko kom bind na ay muqarrabin bind ay ruhaniyin boo ca bëggee bokk foog nga nekk candidat te wa ma zala abdi yataqarrabu ilayya binnawaafil xatta uhibbahu man day diw lay woteel parce que di wala saf ku dem nag ba yàlla di la wooteel ah ndax yataqarrabu ilayya binnawaafil xataa uxibbahu fa in axbabtuhu nag kuntu samaahu fa bi yasmaa wa basarahu fa bi yabsir dam ko waxee ca xadiitam boobu moom yeneen ci bi bu ko defee nga mën cee dégg ni kon xawaas xam si yi mu lay jox cinq sens yi am na interconnexion beneen bu muy amat yu ko duble te mooy cinq ya ca kaw waaw parce que yi mu la jox fii yëpp benn bu ne am na patron ca kaw nopp bi nga yor fii am na buy patron ca kaw bët bi nga yor fii am na bu nekk patron ca kaw noonu la koy topp ba xawaas yépp jeex moo tax dina am foo cay toll da xam ni li ngay dégg bokkul ak li nit ñiy dégg li ngay gis bokkul ak li nit ñi di gis nda sunu mbokk ma ndax ndeysaan Ahmed Riyane Thiam yal ko yàlla yërëm la daan wax naan di yër di yër téere yi di wax ak di yëg téere yi di wax bokkul wax na ko fii ci université Ramadan wax ni dafa tolloog tukulóor bu jóge ca Fuuta ñëw du tëb tëb tëb rek accroché ci nit waaw bala muy accroché wu gis lu ko jar waaw loolu mooy tax donc candidat boobu ñu di ko ñaan mu def mu battre campagne waaw yàlla nga koy supporter sax mais du ko ko waxagum parce que yàlla yàlla grand électeur la waaw ko defee mu bàyyi ko nag muy muy muy deewoo ci suuf waaw pour que di battre campagne am ci ibaadaat yi di battre campagne ci amaliyaat yi waaw lépp loo xam ni wóor na ko ni bu ko defee mu saf yàlla ma nga waaw pour rekk ñu mën ko élire ca kaw waaw bu ko defee bu sa conscience jéemee jëli ji tawaaful qadr boobu ba noppi sa volonté dem moom it jëli ji tawaaful amr ba keroog muy yegsi ci min kulli amrin ji ba ca jiitu mooy atiullah wa atiicu rasul wa uli l amri minkum bu la yàlla rëcc bu la yonentam rëcc waaye itam ñi ñu yenn yëf yi ñu di ko doxalin buñ la rëcc damay ulul amr nga ni lu tax ma di leen topp mu ni jaalnaahum aimmatan yahduuna bi amrina lamma sabaru yàlla ni du mana ne am na ñoo xam ni bu nit ñi dee takk seen ndigg di leen topp te du caaxaan te du caaxaan yàlla nee na mën mooy ba ma ko defee ba noppi sabaru doo ko firee ñu muñ déedéet la ma sabaru waaw bu ñu àndeek seen sago ndax am na loo xam ni ku ko yor te ànduloog sa sago jaru ko waaw lamma sabaru ba ñu àndeeg seen dal ndax am na loo xam ni ku ko yor te ànduloog dal jaru ko waaw tax bu ñetteel ba moo boo ci amee kenn ba noppi yow it bul ñàkk fayda ndax araayta in kaana ala alhuda aw amara bi taqwa da nga choisir est-ce que kaana ala alhuda aw amara bi taqwa ah. mu wóor ni teg na tànkam fa ko ñu jëkk ña tegoon mu wóor la ne digalam boo ko wàccul rejoindre ñu baax ñu moo tax li sëñ Cheikh wax ne ak taqwa du firi ragal jegen jegeeñ yàlla lay firi waaw et puis c'est tout jegeeñ yàlla <laughs> kooku dafa may jaaxal sax ndax dafay wax lu nga xam ni budul moom mënoo ko gëm ndax li mu wax ni yàlla am na ñoo xam ni copain lañ ko def moo tax bu leen neexee sa xuloog moom te dara du leen ci fekk mais xoolal loolu am na ñoo xam ni boo leen waxoon loolu ñu ne eh, astafurlaay fekk am na sëy boo xam ni boo ca xasee ba dugg jeex na sa xalima bàkkaar damm nañ ko ci échange ngay dëkk ci échange ngay dëkk ak borom bi yaag ruuxaaniyiina yi yaag muqarrabiina yi ci ngay dëkk ak ñoom waaw moo tax ñooñu doo leen fekk mukk ñu téye fii alxuraan di téréréer yi mukk parce que ñoom ñooy alquran fa ka annama ixtalatat bi ruuxika kulliha ayatu min arrahman du dëgg mais dugg ko jóg rek dugg ca lu jara tey la ndax yi nuroo dafa bari te yi nuroo te bokkul it dafa bari waaw bi ci des itam moo di bu ñu paree ci yow ba xam ni moom kaana alal huda wa amara bi taqwa ok booy wax lugal arabiya bi kese dafa am noo koy booy wax aaya bi dafa am noo koy waxee waaw nga soog a dem ca mbooloo ma ñoom it wa ma umiru illa li yacbudu llaha muxlisina lahu ddin hunafa c'est très important xanaa xamuloon ni julleeg azaka ñoo mujj mais muxlisina lahu diin la wax diine ëpp na ñun liñ ko foogee ëpp na liñ ko fooge ibadatullah yi ci kaw suuf yépp mën nga ci jàmm yàlla l'essentiel mooy nga di ko def ngir moom sa doom bu ndaw sax bu ndaw bu tuuti sa bébé boo ko yoree di ko nax di ko def nii na yàlla tax mu bindal la ci tuyaabo waaw looy def rek bu ko yàlla lalee bu la koy bindal def lay bett waaw muy la daloon yeneen bi ak mbokk ma waaw doom ji di jooy doom ji di jooy ba mu gi jooy gi déranger ko mun ko waa noppil ma jëndal la tàngal xale bi noppi yeneen bi ni ko ah, ba dinga nga jënd tàngal bi waaw boo jëndul tàngal bi rek yàlla bind ko bàkkaar waaw pour wax la ci yu tuutaan yooyu ci la nit yi maanaam euh, poñet yi ñooy taal ngànj yi bu fekkee ni nag umiru an yaabudu llaha muxlisin ba liñ ci wara a def d'une manière générale ñu def ko am na loo xam ne ñëpp duñ ko yenoodoo kon wal takum minkum ummatun waaw yad'uuna ila al xayr wa ya'muruuna bil ma'ruf wa yanhawna anil munkar comme ñëpp duñ ko mën a defandoon nañu tànn waaw ñu nga xam ni ci seen yitte ak ci seen taxawaay ak seen yéene bu sell lu nit ñi waroon def dinañ leen fa féete foo leen fekk lu baax rek la digal nit ñi foo leen fekk yu doy waar rek tere nit ñi waaw ko defee ñoom itam ak seen amr Hmm. ñu di leen suivre waaw bu ñu organiser penc mi nag ba wutal ko ay institution bu boobaa mu ñaan leen ci biir institution yi amruhum shura baynahum waaw maana nangeen di baaxante waru waru alaaj ci njaase ba waaw dee leen ramonte waaw waaw parce que am na loo xam ne bala cee yonent ak nitu yàlla di jot war na moomini nay ci seen biir ramonte ba noppi ba ci des mooy inna allaha ya'murukum an tu'addul amaanaati ila ahliha waaw responsabilité bi nga jël te kenn forcé wu la waaw nga fexe ba responsabilité bu ne ña concerné la ñu ca wara a jariñu nga fexe mu yàgg ca ñoom boobu it mu ngi ci biir waaw bi ci des moo di bu fekkee nii xëccoo pouvoir dafa am xëccoo politique am te ñépp mënuñoo gañeendoo dafay am ñuy gañe am ñuy perte waaye na fekk mu tegu ci yoon ñu bëggee xul yàlla ne ah te ngeen a tey lillahi amru min qablu waaw man la bu leen gaawantu ma def tey ñii gañe waaye ñoomit bu ñu fecc ndax ëllëg mën naa nangu yëf yi ci seen loxo jox ko ñeneen yàlla nee na nekk fépp bu jëkk bi mën a bu mujj bi mën bu ñu yàkkamtiwul rek ma ñëw bi ci des mooy atamuruuna annaasa bil birri wa tansawna anfusakum waaw yàlla nee na ngay digale nit ñi lu baax ak lu yiw ba noppi fàtte sa bopp mënul nekk amul sens waaw bi ci des mooy wa umirtu li aadila baynakum waaw li ñu ma ñaan te digal ma ko moo di ma maandu ci seen diggante waaw lu xew rek ma nekk ci juste milieu bi waaw c'est très important moo tax toujours lu may faral di waxtaan ak maam Cheikh bii ndax li ma gën a bañ ci àdduna mooy kuy utiliser kilifa waaw man am na loo xam ni ku ma ko waxal rek dafa fekk boobu nga trompé ma maanaam ci éléments yi nga may jox boo ma trompé ci éléments yi nga may jox mënuloo fexe ba ma ànd ci lu dul li ma war a ànd waaw bi ci des moo di wa ma kaana li muminin wala muminatin ida qada allahu wa rasuluhu amran an takuna lahum alxiyaratu min amrihim borom pas-pas bu góor ak borom pas-pas bu jigéen parce que waxul waxul waxul jullit naa jullit dafa dafa gaaw waaw waaye borom pas-pas bu góor borom pas-pas bu jigéen bu dee dëgg yonent bi tranché waratul am choix waaw waaw am yépp mooy li yonent bi bëgg waaw bu ko defee yooyu nag boo xoolee jaar-jaaru xadr bii mu muy kondom kondom ba yegg si ci laylate bi yéeg fa nga xool amre bi moom itam muy kondom kondom yi kondom komari ba dem fekk min kulli amrin ji yéeg fa bële ci sa conscience bii ci sa yitte bu boobaa sañ ngaa célébrer laylatul qadr ba tax na kon nag tanazzalu almalaikatu warruxu fiha bi idni rabbihim <laughs> min kulli amrin waaw waaw lu tax booy dox ñiy rey seen bopp lu ne ñu di ko kii parce que waxu la tanzilul malaayika waaw tanazzalul la wax moo tax yow bu ci sa yoon nekk moom ma leen ak fam leen wàcculoo ak la mu leen sant moo ko xam ñoom yow fexeel ba bu bis bi ñëwee boo dajalee yii nga taxaw revendiquer sa candidature parce que li góor gi waxoon ni yàlla lu jamono laajatul rek mu bàyyi ko bu jëkkoon li taxoon laylatul qadr am solo moo di ci les délibérations yi daan am ndax li góor gi waxoon ni dañu gis juróom benn fukki tariqa ak ñett léegi sunu boroom xam ni bu ñu bàyyee juróom benn fukki yépp rekk ci noonu njaxas dafay bare moo tax mu ñaan yonent bi sallallahu alayhi wa ñu boore kilifa yooyu nga xam ni ñoo yore tariqa ya ñu ñaan leen ñoom ñëpp ñu ànd def benn tariqa bu ñu ko defee ba noppi ñu wutal leen benn sénat ca sénat ba fa la daje pour di wax yonent bi seeni soxlay pénc yonent bi di ci àddu di ci joxe ay instruction ñu di ko wéyal waaye li wax ni biñu demee ba jamono yegg foo xam ni Sénat bi marché dootul yomb ci la ñu ak yonent bi pour seen délibération yu mujj yi ñu fexe ba mu mëtale siècle yëpp waaw ñu tëj Sénat ba léegi nit yàlla yi nekk ay touriste rekk ñooy ñaan autorisation pour dem visiter ko waaye boo demee te amuloo autorisation nee na bien que garde yaa nga fa mais garde yi duñu ñëw ci yow ndax Sénat bi ci boppam moo lay gëq mu dellu ci li leen waxoon léegi ci chaise éjectable bi waaw wax na dëgg mu nit a foofa beñ amu fa suuf gi yépp wurus la ak jama moom la lay sotti ko fa wax na dëgg kenn du fa sol dàll lu dul kenn waaw ah, ok Moussa lada tuuri nuudi yaxla wa ahmadu fawqa al arshi lam yudam bi xalci niaalihi kenn rekk fay sol dàll waaw mooy góor ga waaw te dalli deram yooyu lay doon waaw nga di ko xàmmee ci moom waaw nee moo tax bu ñu fa dajee li ca gën a yéeme léeg nga gis ku bokk ci beneen tariqa daal ni yow diw mu ni ko am ah, mu ni ko sa tariqa gis naa fa koo xam ni daal njariñam ëpp na kon nañu wax yonent bi pour mu defal ko shahada ndax ñàkk iñaan ndax ñàkk iñaan am na loo xam ne bu newul ci seen tariqa te nekk ci tariqa keneen comme day servir cause bi rek duñ ko bañ bu ko defee ñu ñaan yonent bi mu defal ko shahada waaw yaakaar naa Oustaz Cheikh mi yaakaar naa seede la ci yaa ma yónnee audio bi ah. benn Moustarchid yónnee ko waaw ah, ñu won ko ci bi toog abu Bakar toog ci wetam Ali yu toog ni yore bloc-notes bi Omar toog ci gannaaw ak Ousmane ñuy ñaan ñaan ne Abu Bakar waxal yonent bi mu bindal diw shahada Abu Bakar ne ko pour jox bi shahada du problème waaye fa mu nit ñi dañu jógeegul fa ñu fa te bu ñu avancé shahada bi lum leen doon njëriñ def leen koy gaañ te fekk na booba Ali ibn Abi Talib ak ñu ngi wequ ni na yonent bi bind shahada bi waaw ki ko gént def ko audio jox ko oustaz Cheikh mu yónnee ma ko pour wax la looloy tax waxin bi aliyu bnu abi waxewoon waxe woon nag muawiyatu bnu abi sufyaan keroog ba mu ñëwee bëgg xëccoog moom yëf yi te mu wax ko wax bu simple yëf yi nekkul ci gëna a bari nit yëf yi nekkul ci wax ju bare jëleel sa personnalité ma jël sama bos ñu taxaw ci kanamu alquran waa tëju sama bos bu dul am quatre vingt dix rekk ma jox la yëf yi waaw ya dafa daw ni ko duma ci dugg nañu seddoo yëf yi rekk yow nga contrôler fii ma contrôler fii Ali ni ko kon na jàmm jeex na waaw dañuy defante rek ba fu yàlla féete ñu xam waaw loolu moo indi seen xare bu metti ba xare bu nga xam ni la ci gën a mooy ba ñu reyee ña ñuy rey blessé ña ñuy blessé jël asral xarb te muy les prisonniers de guerre fañ leen doon ramasser ñu yem ci benn gëléem boo xam ni fett yaa ngi dal ci moom fu ne ni ka Aïcha jabaru yonent bi moo ca war ndax dem fe fara jeeg bay Ali ibn Abi Talib xoolal loolu pour un problème de rien du tout ndax bañ ko tuumalee moom Aïcha Ali ibnu Abi Talib daf doon dóor benn domestique am boo xam ni dafay faral di dem kër Aïcha pour xam ndax li ñuy wax dëgg la wala du dëgg ndax boobu yonent bi sonn na jëmmi dóor ga mu nag domestique ba la ko Aïcha mere ndax jàpp ni daf ko yéene woon affaire bi mer la téye ba keroog ci xare bi mu dem ànd ak Muawiya bi ñuy jàppee gëléem gi ba indi ko ci Ali ibnu Abi Talib ni ko Aïchatu ummul mu'minin mu ne kii sang la sang la ànd leen ak moom ngeen gunge ko waaw ngeen protéger ko waaw ba dellool ma ko ba mu jóge te dara du ko laal ndax soxna sang bi la te moo ñu fi bàyyi mais la ca gën neex mooy ba ñu demee ba yóbbu Aïcha ba noppi ñi ko yóbbu woon def ci am ku taxawat ñi ci des ni leen leçon la de moo leen di xamal ni yëf yi pas-pas rekk a fi bay nit nekk jabaru yonent nekk doomu yonent leneen bu dul pas-pas bi jaru ko ni man nag ma bëgg leen a xamal loolu fii ngeen xam ne Aïcha li doon xew-xew na ñaan nañ ñu ñu delloo ko delloo nañ ko ci jàmm nañu delloo suñu pas-pas ci Ali ibn Abi Talib waaye nga gis ni Muawiya bien que vaincre nañ ko mais taxul mu bàyyi ñu nekk ca yooya nekk ca yooya ba ñu xëy attenté àll yi jël bakkanam waaw rey ko mais la ca gën a yéeme mooy renseignements généraux yi bi ñu ñëwee wax ko ni ko ñu ngi tëral ay pexe pour rey la jëlal say disposition mu ni kayfa aqtulu qaatili mas nga gis loolu tawxiid ba foofu ki yàlla ni moo may rey nu ma koy rey boobu c'est trop boobu tawxiid ëpp na kayfa aqtulu qaatili waaw ba ñoo xëy rek sàkkal ko pexe ndeysaan bu mu jógee ca conflit ba continuer doom ba al Xuseyn moom it moo ko Yaziid ibnu Muawiya boobu moo gën a garaawati sax rey bu ñàkk teggin waaw dañoo xam ne seen xol doo xam lu ñu gëm ndax ñàkk teggin la rëy bu ñaaw ñu woo alxasan ñu ko kay jël yëf yi mu ni doy na ndax xilaafa buñ ca reyee sa baay rey ci sa frère loo koy doy waaw pour wax la l'islam beeg fi mu jaar te ñoom ñooy ahlul bayt waaye pour wax la foofu la yëf yi commencé di dégradé di jël beneen tournure xilaafa bi doxatul waaye fekk na yonent bi xamoon na ko mu taxoon ñu chronomètre kenn ku ci ne temps bi nga ci war a def mu wax ni abu Aboubacar ñetti at la ciy def Omar fukki at la cay def Ousmane fukki at ak ñett la cay def Ali ibn Abi Talib ñëw def ñeenti at fanweeri at yi mën xilaafa jeex xoolal loolu moo tax sëriñ Cheikh itam sëriñ Babacar wax ko loolu ni ko ku ma waxoon ni di nga dund lu ëpp fanweeri at loolu ndax li mu war a def yëpp ci fanweeri at yi def na ko waaye mu ni booba soxla njaboot yu soxla ku leen nàmpal moo tax ñu bàyyi ma fi looloo fi des ba léegi ndax nit yóbbantewula barki démb ni la gis naa Serigne Babacar mu ñëw ni day jël si Moustapha ñëw fekk ma may julli mu ne ah dama ko fekk muy julli kon nag bu pare ngeen wax ko ni ko ñëwoon naa pour jël si ko waaye bu ko naroon du dellu ñu teg ci une semaine day associé c'est Fatou ku soxna umul xëy comme la woon ca Guinée Doudou dama wax leen ko fii pour wax la yëf yi la tax Muawiya daw te yooyu la Maodo doon wattuloo ñi nekk fii ci Sénégal ne na ñeent ku yebu bàyyi ko picc yi lekk gu bare bàyyi leen ko ak tan yi sañse di taxawaalu bàyyi leen ko ak jàmbu jóob yi wër yor sa rajo rek di soow te kenn xamul li ngay soow lan la bàyyi leen ko ak baaxoon yi fu jongama rafete nga dem takk bis bu ne bàyyi leen ko ak séq yi wax na moom Maodo parce que yii moo tas lislaam bi Muawiya la tax mu daw xam na ko ndax ñett rek ko yitte la pouvoir xaalis ak jigéen looloo tax ma jël kenn jëndee la duma xool kenn jëlee la sama yëg-yëg ci yow laa yam dama réeroon nga gën sëñ Moustapha duma sama yëg-yëg ci yow laa yam dama réeroon nga gën sëñ Moustapha sama way wi ma jagleel ko